nee na lii la bëgg a wax nag ci lu aju ci masalam takk soxna bu ñëw nag ci mbirum tekki ga tekki ga mooy fase nee na baatu talaaxu daa bàyyi ko ci biñ ma saa yeew gëleem ci rab wala ci tënk ba noppi nag yeewu ko libéré ko mu dem loolu loolu woon ci sàll baat boobu jigéen tam bu nekkee ci buumu sëy góor day mel nañ ko yeewu ci buumu sëy ga suñ ko fasee day mel ne kon yeewu nañ ko libéré nañ ko kon maanaam woon ci cosaan ak maanaam mii ko jëmale ci wàllu fase nuroo nañu kon nee na da ngay wax baatu talaax bu dee ci langue arabe rek moom dem rek lay firi muy départ mbaa lu ñu yeewoon libéré ko mu dem bu dee ñi ko ñu dégg fiq ji waxee nag moom bi ko waxee ñu ci jublu buru sëy ga doxoon diggante jëkkër ak jabar ñu dindi ko mu deñ mooy góor ga nga xam ne moo ko sañ a def mooy moo ko sañ a dindi dindi ko mu deñ mbirum passé mii nag nee na yàlla mi dogal moo ko moomale jëkkër bi jëkkër ji moo sañ a fase waaye jigéen ji moom sañuta fase boppam boo mu sëy ga ma nga ca loxol jëkkër ji waaye nekkul ca loxol soxna sa nee na fase ñaari xaaj la fase moo xam ne moom lañ tàmm boo def defe na te mooy pasem sunna ak pasem moo xam ne pasem biddaa la tàmmuñ ku ko def te bokk na ca nag jekki-jekki fase soxna ci benn baat ndiki jekki-jekki ne ko fase naa la pase mu dog waaye jekki-jekki ne ko fase naa la ñetti buum li gën gàtt rek mooy boo fasee xam pasem sunna ak i sartam ñu tëxat lu néew néew rek mu daal di bokk ci pasem biddaa loolu moo gën a gaaw mu daal di xamal nag pasem sunna pasem sunna ay sartam mooy bu fekkee jigéen joojee dana di gis deret dañuy sart kon yooyu jamono mu bañ a toll ci gis deret ndax jigéen moom bu tolloo gis deret fase ko day araam nga xam ne bu dee ci yoon sax bu dee mu mën a fayli yoon forcé ko ko ci mu fayli ko kon na ngay wax ne pasem sunna daal mooy bala nga koo fase na la wóor ne ci laab la toll muy benn te diirub laab ga jotewoo caag moom dara dara muy ñaar te nga fase ko benn pase képp dañ koy def ñaar mbaa ñett bañ caa tegaat meneen pase ba it daje jeex loolu mooy ay sartam ndax bu fekkee tàggoo moom dong nga bëgg jël lu xew ba di ko ëppale benn ndax moom boo ko fasee benn rek te soo yowoo ko ba it daje jeex jeex na nekkatul sa soxna kon nag sart yaa ngoog na ko fase ci ak laab te laab ga jotiwu ci ak moom benn yoon te fase ko benn dong te bañ caa tegaat beneen pase ba idda ji jeex bu doon koo xam ne daa am bu moom waxtoo ko fase rek baax na ndax iddaam di yokk du wàññiku mooy rek am doom bu doon ko ndawee ba ëpp mbaam magi bopp ba du jute rek waxtu woo ko fase rek baax na ndax moom ñetti weer rek mooy nekk iddaam bu doon koo xam ne la ko may rek yem ci jotiwulaak moom dara itam waxtoo ko fase rek baax na ndax moom du iddaw sax sax mais sa soxna fase naa la rek yem ci néew ko benn mbaa ñaar mbaa ñett day lay laaj ba xam loo jublu ci fase naa la ji boo nee benn muy benn boo nee ñaar muy ñaar boo nee ñett muy ñett bu dee ci yoonu maal yi moom boo nee ñett itam muy ñett boo nee ñaar muy ñaar ko mooy bu jigéen ji doy leen ci sëy ba bëggatuta ànd jëkkëram booy bëtigu nag fay alal jëkkëram loolu mooy sundikoo su ko see joxe alal nag jëkkër ji nangu te xam ne moom bëgg baatama tax mu jox ko alal ji teewu ko nangu moom jëkkër ji dañuy jàpp ne kon fase na soxnaam menn pase moo xam ne fay li mënatu caa topp bu idda jeexee nag te njuboo mën na ko takkaat takk bu yees waaye moom bi ko see sumikoo nii mu jox ko alal moom bu ko xam ne ko fas naa dem di dee yoon jàpp ne fase na ko menn pase moo xam ne fay li mënu caa am ndax bu da fay li mën a naam kon mu fay alalam ba noppi ñàkk alalam nee na pase am na ñeenti ponk bi ci njëkk mooy ka nga xam ne mooy def pase ma nee na kii fase dañuy sart mu jullit bu dee yéefar bu fasee duñ ko faale te itam mu nekk mu kàllaf fa ñu nekk gone gone bu fasee deesu ko faale te itam mu ànd ak sagoom bañ a dof ba muy fase bañ a xam mbalu ko nuru fekk ne boobu dafa dof tax mu tudd baati fase wala mu doon xam wala mu sibru bay wax rek wax wax daal di wax baati fase yi yëpp di tax pase mu dal ku màndee ci lu araam moom ni ki sàngara mbaa njàmbaan loo xam ne dem na ba am dëgëra yi màndal wax ji gën a wóor mooy bu fasee rek pase ma dal ndax la ko tax a màndi moo ko teg boppam luy seet na ba xam daa màndi ba xàmmeetu dara dara ni ki asamaan suuf daa dara wala aggu foofu moom daal moom màndee ci lu araam rek moom bu fasee pase ma dal li tax mu ne ku màndee sàngara mbaa njambaan lu mën a màndal dalaa bëgg a xamal ne la su màndee woon loo xam ne nii lu dagan la nit am soow rek la naan daal di màndi mbaa aw ñam wu lekk rek daal di màndi fekk ñam bu leew la wu dagan la wala garab gu mu naan rek far màndee ca kooku moom bu fa dee itam du tax pase ma dal ak taali ñaareel bi almaxal lu mooy bërëb ba maanaam bu ñu fasee ana fan la pase may dal nee na fa fase may dal mooy soxna waaye day fekk nag kamu fase doon soxnaam waaye ndegam mënugul boobu sëyam mënu koo fase balaa góor a mën a fase kenn rek fekk mu moom boobu sëyam teewul nag liy wax aj fase ci bu mal takkee nga fase bari ne atteloo daañu ko leeral ci téere ci des ñetteel bi nee na mooy ba mu tudd baatu fase ya mu jubul ko ci nga xam ne moo ko tey waaye bu fekkee lan na moo rëdd rek mu tudd fase waaye jubluñu toon wax baati fase ya su boobaa duñ jàpp ne fase na buñ ko fase woon ba wax ne fase naa itam waaye gis nga ko bi coobareem di ki ñu ne ko boo fasewut ma rey la mbaa mu tëj la kaso mbaa mu dagg sab cër mbaa mu mbécc la ci kanam mbooloo mi te fekk kooku di borom bañum rus yooyu yëpp bu ko taxee fase itam di tax fase na dal daal du ko ci war ñeenteel bi nag mooy maanaam ponki fase yi boobu ci mujj mooy baat ba mu wax ba nga xam ne fase na mbaa lam def ñu wecc wax te mu waxut waaye jëf na jëf yoo xam ne wecc na wax ñu xamante ne moom ñu daa fase daa ñu ko leeral moom it baat yi nga xam ne moom la ñuy wax ngir fase dañ koy def ñetti xaaj baat boo xam ne ak xappati la ci fase ak baat boo xam ne dàkkintal la ci fase ak loo xam ne du xappati du dàkkintal nee na saa yoo ko fase naa la rek xam ne bu dee ci arab andi na baatu paa ak laam ak xaaf lu bokk ci matière walla ko fase na daal moom bu indee lu ca bokk rek bu dee ci walla man nga ne bu tuddee baatu fase naa la ak nu mu ko tuddee rek loolu baatu fase la boo xam ne ak xëppati la ca ak wóorul la ca fase képp képp lañ ko mën a jàppee li ko benee ko anti taalixun wala anti mutallaxatun waaye bu dee wolof mu ne ko fase naa la wala mu ne ko demal fase nga lu mel noonu faaw pase am na bu dee jubluwul ci woon tam du tey ñu ne ko pase moom am na su ne ko nag fase naa la rek yem ci ñooñu benn mbaa ñaar mbaa ñett dañu xam ne benn moom am na daal di koy laaj nag ba xam lu yéeneem bu dee benn laa yéene woon ñu ne ko benn la bu dee ñaar ñu ne ko ñaar la bu dee ñett ñu ne ko ñett la baat yi nga xam ne dàkkintal la ci fase nga xam ne nekkul xalpati ci fase waaye dàkkintal la ja ci ñaari xaaj la am na ci dàkkintal loo xam ne dafa fis ci fase nga xam ne moom rek lañ koy jàppee ak nag dàkkintal boo xam ne jamtalu na fase jamtalu na leneen lu bokkut ak fase nee na baat yi nga xam ne ñoom miinoon nañ ko foofa ñu koy dàkkintale fase ñaari baat ñi mu wax ci la bokk anti xaliyatun ak anti bariyatun dañuy seet nag ñenn ñu nekk rek lañ miin ci bërëb boobu rek te lañ leen di àttee bu dee fii ci wolof yi dañuy seet baat yi ñu mën a waxee ci fase rek yu àttee leen ci noonu dàkkante bu fas yi moom moom ba nga xàppatee ci digg jaar ci baatu fase ñoo yemoo dong ñoo yemoo ci aw boo ne jubluwuma ci fase itam dañuy jàpp ne fase rek nga def nit ki bu dee ci wolof may naa la sabaat dàkkantalawuñ miin la ci fase boo ne ko may naa la sabaat moom fase képp lañ ko mën a jàppee boo ko bëggee firee neneen kenn du ko nangoo leen dàkkantal wu nga xam ne jamtalu na fase jamtalu na leneen nga xam nga boo ne ko israel yi demal rek mbaa israel fii man naa am dama wëcc naa la fase naa la man naa nga jug demal ba seet say mbir ndax yow daal sa mbir jaaxal na ma léegi kon xam nga baat yooyu jamtal na fase jamtal na lu bokk ak fase moom nag nee na am na yaatal guñ ca def boo ne jubluwuma ci fase ñu ne wax nga dëgg jubluwoo ko ci boo ne fase laa jublu ñu ne la waaw ñaata nga jublu woon lim boo wax rek ñu nangu ko boo ne bàyyi wax loolu kat benn fase laa jublu woon ñu ne waaw baax na boo ne ñaar ñu ne baax na boo ne ñett it ñu àtte ko ñett kon baat yi mel nii moom boo ci namee passé rek muy passé fekkee nee nga jubluwoo ko ci itam ñu ne baax na kon du fase rek yi nga xam ne nag moom du wax ci làmmiñ waaye daa wecc wax ci làmmiñ passé mooy mel ni junj junj baa liyaar xam nga bu dee ak lu liyaar képp la man bu liyaaree ba nga xam ne moom daa fase rek jàpp ne kon fase na ak lu nga xam ne mënta wax moom bu fekkee dafa liyaar ba nga xam ne daa jubloo fase rek liyaar boobee moo wecci waxante làmmiñam bu dee keneen ba tey noonu la doonte ku mën a wax la it bu junjee ba nga xam ne li mu junj moom fase la rek ñu jàppe ko fase nee na bokk na ci li wecc wax sa làmmiñ taxe ma nga bind ko dagam ki mën a wax sax su bàyyi wax ji bind taxe ma ñu jàpp ne fase na kon xam nga ne ku mënta wax moom ba bindee waxaale wuñ ko moom it xam nga ne kon fase na soo bindee nag baati fase yi te dañ ko bind boobu fekk na nga doogu ci ne tay fase saa soxna kooku moom nee na fase bi dal na ban sax jot lioo bataaxel ba sa soxna waxu ko kenn itam bi ko xasee bind te dewu ci fase rek fase dal na am moom loolu lu ma tax xam la bu fekkee da ngay bind baati fase yi doogu woon ci daay fase da nga ne woon daal daa koy bind soo noppee gisoo ak saa xarit wala saa waajur ba diw ba xam daal danaa ko wóolam déet kon doxuwoo ci woon loolu moom kon li xew ci seen jotu ci rek mën nga caa génn dal ci teg naaw waaye nag boo ko bindoon teg fee far jigéen ji ñëw lim si jàng ko it du tee fase ma am na bu si àgg ci diggante rek moom passé daal di am waaye bu fekkee àggul ci moom rek moom passé amut su dogoo ci fase soxnaam ci xolam buy rëwér wax itam baati fase yi ci xelam bu wér a wér waaye nag taxul mu wax ko ci làmmiñam taxul mu bind ko ndax kon dana tax soxnaam fase wala soxnaam du fase am na ñaari nettali bu fekkee daa am ko fase soxnaam ñetti fase yoon ne ko bala nga ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar dana araam na yow nga dem bëgg a takk jigéen joojee ngir rek boo ko takkee bàyyi ko mën a dellu ca kookee ko njëkkoon a yor kon araam na ngay takk jigéen takk goo xam jubluwoo ci lu may boo ko takkee bàyyi ko nag mën a delluwaat ci ki ko njëkkoon na fase ñetti fase boo ko defee def nga lu araam te boo ko see xam loolu tax nga def ko jeex na du tax ñu mën a bàyyi jigéen ja mu dellu jot kookee ko waroon déedéet bu leen yëg yéene takk nga takk ba ko daganalal ki ko njëkkoon rek la faaw yoon teeb bi sëy boobee moo xam jot ngaa wéet ak moom moo xam jotewu leen dara bu fekkee nag ba ñuy teg sëy ba daa fekk jote am ba noppi nag kon taawuñ jox jigéen ja can gañ waxante woon su fekkee waxante woon genn can nag kon jox ko canag moroomam lu tolloo lañu jox ay moroomam daa wax ne sa soxna boo ko xasee fase ñetti fase faaw ba nga ko mën a takkaat dafa amaat beneen jëkkër ba jëkkër joojee joteeg moom ba bàyyi ko nag bay da jeex nga doon koo mën a takkaat li tax mu ne nag ci sabab moomeel mbaa takk mooy yooyu jamono jaam dafa amoon nga xam ne kon yooyu jamono boo yoroon sa soxna muy jaam nga bëtiku fase ko ñetti fase da lay wax ne la li mu nekk nekk jaam boo ko jëndaatoo nit moom ko rek ngay mën waaye doo ko mën a soxna woo faaw rek bala moo dagan ceew ci nga joteeg moom ci moom boo ko moom mbaa takk boo ko takk faaw jëkka dafiy jaar rek ba joteeg moom ba tàggoog moom jëkk